صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك واميق am na lu leen wax waaye fekk na man ma wax leen loolu nekk ba ñuy dem ci moom daaw ci 2003 bi xale yi dañoo ñëw ci man dama wax xale yi waaye dama wax ne doomi daara yi ndongo daara yi suñu doom yi ndax xalaat bu mel nii du génnee ca xelam kon kum génnee ci moom bi nga tuddee xale dugg ci boppam xale kon koo xam ne alquran dugg na ci boppam kooku tuddeetuñ la xale bañ ñëwee daaw ci man dama ñëndee dañoo gërëm ba tax na ngir bànde loolu duñ ko bëgg a feeñal ma leen lan la ñu ne dañoo bëgg a def ziyaare boo xam si yow lañ koy tuddee ma leen déedéet ziyaare boobu ngeen tudd man àgguma ci foofu biñ taxawee wax joxe seeni bëgg-bëgg waxi tamit li tax ñu bëgg ko may tey ma wax leen ne naa ci loolu waaye ci façon bii laa ko bëggee dañuy ziare jullit bu nekk mën naa ziare mbokkam jullitam taalibe bu nekk mën naa ziare mbokkam taalibeem kenn waxu ci loolu dara waaye nag la cay coono ba cay ànd moom laa wax ne man d'accord ba ci pour mu jëm ci man biñ taxawee ci taxawaay boobu wane seen bëgg-bëgg maa ngi leen li ngeen bëgg de man danaa ci ànd ak yéen ci li ma leen wax nii mooy lan mooy daje bii wala jotaay bii wala yëngati yëngatu bi ngeen bëgg a def du lu tuddee ziyaare Muhammad sa déedéet dañ koy tuddee bisab daara ji bisab daara ji suñ ko waxee taalibe yi ak seen daara yëpp ci biir daara jooju moom lañ fekk ci suñuy waajur ci suñuy maam ci suñuy sëriñ moom la ñuy xeñti tamit pour àgg ca loola su ngeen d'accord ci loolu ma d'accord na ñu d'accord ci loolu daaw loolu mooy daaw daaw ndaxte daaw mooy bu njëkk bi ren bu ñaareel bi bu ñaareel bi de bu ñu ñëwee man gis naa ci kàtt yi def gannaaw bu ñu ko defee ba ziyaara naam may li ma waxoon ak yéen tey daaw soppeeku kon nag dañ toog waxtaanaat ñun ñëpp ñu delluwaat ci xalaat bi nga xam ne ji mooy li nga xam ne ji dara ab sëriñ daara ab taalibe ñu dajee xam seen daara difa fa jàngale xale yi di fa génnee di mokkal Alxuraan xale yi dafa génnee di jub xale yi dafa génnee di am yar ba fu ñu dem sax fu ñu dem loolu lañ leen di xoolee misaal bi ñu bëgg a joxe léegi mooy man am na école boo xam ne ci foofu laa daan yóbbu foofu laa yóbbu sama xale yi nga xam ne tar nañu alxuraan ba pare te ma bëgg ñu daan école foofu laa liggéey am na koo xam bi ñu yóbboo daaw ci 2023 bi boobu année scolaire bi dem na ñetti weer ak lu tegal bañ demee ñoom dina wax ne xale boo xam ne na ci jot ci at mii waaye gannaaw bi ñu ne ñoom am na luñ seetlu ban tey yi xam ci daara jooju ñu tudd ñaare jàngal leen dafay yomb yar leen dafay yomb kon loolu moo tax danañu jël xale bii nga xam ne ñu tàdd na ñetti weer ak lu tegal ci at seen adresse ñu jël ko suñ doom la sama doom la turandoo Cheikh Mahamad Mahi bii la moom la am tuddoon bañ demee compo yi njëkk a def bu am baanaam bu njëkk ba def ko tàddoon bu ñaareel fekk na ko bu ñëw deuxième ci école ba bi bu ñetteel bi ñëwee mu jël premier kon loolu lan la téetale mooy alquran ji nga xam ne ji Cheikh Bachir wax na ko léegi yàqkat yi dañuy jàpp ne dañuy wax ne daara yi dañuy tardal xale yi wallahi daara yi tardal xale yi xale yi ku leen teg ci yoon danañ jàng ba tardal alquran danañ dem dugg jàng li nga xam ne ñu ngi ko jàng ci réew mi te duñ tardé dara te ànd ak jikko yu rafet ànd ak baax ak ànd ak bëgg lu baax moo tax ñun ñu ngi sant ci loolu bu baax a baax a baax xale yi fi taxaw nii ñu leen di jokkale ñu ci gën a bëri baccalauréat lañ doon def leen ci daara ji lañ génnee barki dem mooy ñaay doon tale alxuraan kon loolu ñu ngi wax ak yi ne wala ñu ngi wax waajur yi ne seen doom yi bu leen kenn nax wone ne daara daf leen tàddal déedéet daara daf ñuy may ñu jëm ca kanam daara daf ñuy may daara daf ñuy may ñu gën a bëgg si réew daara daf ñuy may ñu bëgg am ay kilifa yoo xam ne suñu defal nga def suñu la baal nga ba te xale jaar ci yoon yi war jaar mukk te amul loolu dañuy wax ne kilifa ku amul sax war nga wóoruti ndax nit mënta baax wala mën mënta àgg ko war a àgg lu may am na kilifa goo xam ne moo jàpp ci kon loolu moo tax ñu ngi feddali ci baat bi ñu waxoon daara ji maanaam jotaay bii nga xam ne ji moom lañ fi dajee bi jotaayab ziyaara ziyaara la ndaxte ay julli moom fu ñu ak ziyaara sa waaye nag liñ ci jublu ñun mooy daaraay sàmm kóllëre daaraay yëg ne ñun fii de jaar nañ fi bañ fi génnee bañ fi duggu xaj na jooy xaj na danga daan gis xale yaayam di ko jiital ci suba tey bi ci daal bi jooy ko dem na dégg nga xale yooyu doon jooy ñoom ñoo ñëw tey ne dañuy jooy seen dugg ci daal yi ñoo ñëw tey ne préparé ba lépp loo xam ne daal yi bëgg la suñ ko mënee am wala ñu mën koo def dañ ko def kon alhamdulilah rabbil alamin loolu mooy yarab medina loolu mooy yarab baay loolu mooy daara loolu mooy alquran ca kanam la ñuy jëmee ci lay jëmee njaboot gi ci lay jëmee suñ yi kon ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di delluwaat di gërëm suñ sëriñ nga xam ne ji moom wax nañu ne ci tey kii ne mokk mi ngi ñaan boromam mu dem ak mokk alquran muy karaamam ku xam na ne na mokk alquran muy karaamam dinañ gisee yàlla yu ndaw yii day ñuy tere alquran ci ñettaat ñeentaat dugg ci yeneen école dafa première te terewut alxuraan ji xam ne ñu ngi ko amoon ñu ngi ko ci boole terewut ñu ngi mën a dem di jàng ji tamit te yàqul leen dara kon ñu ngi sant bu baax a baax ñu ngi gërëm xale yi ci seen pas-pas seen gis-gis ndax dëgg-dëgg lu baax ku nekk bëgg nañu askan la kon nag bu ñu tuddee lu baax su ñu ca askan rek war ngaa sant la kon ñu ngi sant bu baax baax waaye tamit nag gannaaw bu ñu xale yi ak waajuri xale yi toujours damay wax fii ci Medina daara ji su waxee daara ji daara ji ma daara ji day xaj na man dañ ñu tudd waaye daara bi ndax ña fa joxe seeni doom di fa joxe lañ man di leen ñaanal yàlla ñooñu ñoo taxawal daara ji kon ci loolu danaa sant samay mbokk mbokk yu baax yi xam ji kuy ñaan wërsëg ñaana yàlla may la mbokk bu baax daara ji wax ne daara maamu si la déedéet daara ji lu ñu wax ne daara sëñ waaye ba tey rek daara ji a bay la ndax sëñ moom ak léppam ak ab yaram ak jubalam lépp dafay dellu ci maanaam Cheikh Alaaji Ibrahima Niass kon ñu koy sant bu baax a baax di ñaan yàlla yàlla taal ñu ci seen yoon ñoom ñoom yoon ñu jaar ba agsi fii jaar ñu fi bañ mën a dégg lii lan la bañ mën a xam lan mooy mbaax bañ mën a xam lan mooy njub bañ mën a góorgóorlu di ca góorgóorlu di ca di ca dugal suñuy doom ak suñuy sëte suñu yarbaat loolu ñu leen sant bu baax baax xale ñu ngi leen di gërëm leen di yàlla ñu ngi ñaan yàlla lii mu leen mayee ca daara ja dégg nga leen may may yoo xam ne bante dafay wéy diin yàlla may leen alquran gannaaw leen may alquran yàlla may leen xam may leen jub may leen baax te loolu ci bii ci Médina lu yomb lu yomb lu jafe la lu yomb la suñ seetee mag ñi xam ne ñoo fi jaar ak seeni pas-pas ak seeni jikko ak ñi nga xam ak doom yi ak seen ñi nga topp di roy ci ñooñu ngeen gis leen ñu nekk ak yéen waxtu nekk di leen wax di leen tuur xam-xam njub di leen delloo ci rëdd yi nga xam ne ji moom la baax kon dama am ci yàlla mu ñu gën a yombal moo tax ci loolu danaa gërëm samay mbokk te su ma sama mbokk mooy dëkk bi yëpp la ndax di dégg ngeen ko léegi Cheikh Mamadou Bachir bi ñu wax séddéem bi ñu faral déglu ki nga xam ne bii moo ko yónni mu wax bi dégg ngeen ko doomam maanaam man toujours dama daan xool su xoolee daara ji damay wax ne alhamdulilah rabbil alamin ndax daara jii de yàlla wattu lu tax ñam fa boole sëti baay ak ñi ànd nag moom ak ay mbokkam fu ñu nekk rek foofa lu fa naroon wàcc ci xam ne ji safar lay yàlla rus na loolu man moo tax te dama laa noon moom am naa ci kóolute gu rafet na incha allah fañ jot nañ fa àgg te tamit xëy yàlla dana la wattu ci loolu danaa gërëm tuuti ci ay nit ci daara ji li may njëkkee ci ngërmande li mooy suñu doomi sang yi suñu doomi moom xam ne jël nañ seeni doom nga xam ne fu ñu seeni doom am na ñoo xam ne suñ ko déggee dañ xam ne fii de am na am na lañ fa bëggee tamit lu baax moo fay génne danañ fa dugal seen doom kon ñooñu suñu joxee sa doom ñoom ñu ci li nekk kon ñu leen di gërëm ñooñu laa ngi tudd Cheikh Mamadou Makki du ma wax ne sama xarit la waaye soppe la moo xam ne ji fii ci Medina ci bitti bokk nañ man ak moom ak Cheikh Mamadou Bachir mi yu bari kon loolu ñooñu mbokk googu mooy tax lépp lu nekk rek yàlla nañ ci dimbale waaye dana sant tamit mbokk yi nga xam ne ji maa ñoom ñoo bokk bàyyi Cheikh Ahmad Tidiane Aliou Cissé di ñaan yàlla yàlla defal ko li mu bëgg nga xam ne daal ji bi ñuy def premier pierre moom mooy moo ko tewal ci vingt trois yaakaar naa Baye Cissé deux trois wala deux vingt quatre dégg nga moom loolu ànd ak ni balam daa ji 2023 wala 2024 ah 2004 waaw kay 2004 2004 ci lañ samp daal ji waaye 2000 euh, déedéet daal ji nga xam ne mooy bi mu ngoog ah daaw di ubbi 2017 lañ ko ubbi moom 2017 boobu Cheikh Ahmad yi moo teg premier prix bi ci diggante gàmmu ak gàmmuwaat ñu bëri ci taal bi fekk nañ ko ci mbaax ak yàlla ak nga xam ne duut ñun bàyyi la ak ñamaandatoon daa ji tabax boobu ngeen di gis yaa def ñu def ko ci at ak genn wàll wala ñaari at 2016 2017 2014 2015 2017 daal lañ ko lañ ko ubbi moom ci lañ ko ubbi taxu foofa dafa jàngee ñuuru man toujours di nga xam ne wërsëg ëpput am mbokk mu baax man de sama mbokk baax nañ wërsëg woowu maa ngi koy maa ngi koy yëg ci sama bopp wërsëg woowu maa ngi koy yëg ci bépp yëngatu moo xam maa koy def ci lépp lu ma nekk muy imaam Cheikh Ahmad Tidiane ak mboolem ay mbokkam Cheikh Mamadou maa ngi nii toog dégg nga xale bi nga xam ne ji moom nar bi moom laa ko tuddee tardé na alquran moom laa leen wax léegi daaw bañ ko yóbboo ci école ba ñu ne koo na ñetti weer ci an sa dégradation ko mën jël moom la kon nag alhamdulilah bi ñu ngi leen di sant ñu ngi sant mbokk yëpp ñu ngi sant dëkkandoor yëpp ñu ngi sant euh, Medina Baye ak lépp ku nekk Medina Baye di wax ne seen daara la lañ fa taxawal yéen la seeni ñaan moo fa nekk seeni doom ñoo fa nekk seeni sët ñoo fa nekk seeni jarbaat ñoo fa nekk moo tax lépp luñ ko bëgg rek yàlla ngi fay defal te ant ak benn jafe-jafe ñu ngi sant bu baax ñu ngi gërëm ñu ngi ñaan yàlla yàlla def ñu ñu bokk ñu nekk ñu dëkkandoo ci àddina nekk tamit dëkkandoo ribaay fële ci àll ëllëg ci àll xel dayoo bii la xam ne nii fi naa sabab doom la nekkoon lii foofu di liggéey la. ñëw na ci jotaay bi ak laa ko ko wax boobaa léegi ci semaine la toll ñëw na ñëw ak léppam ñëw alalam ñëw mbaaxam ñëw liggéeyam kon sama doom la sama doomi mbokk la muy umu ñaan mu ànd ak ñu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm ñu ngi koy ñaan yàlla di ñaan yàlla tamit wax naa ko léegi sama mbokk ndax lépp ñoom ñoo ci jiitu waaye am na mbokk bu baax dagaalu nekk waa mbir na la waaye dagaalu nekk jotaay bi sax jógul na la xam ñoo moo tax waxuma kenn naan ko dafa am daje bu ñu def lépp lu ñu fa def xale yi ñoom ñoo ko def lu ñu fa nose ñoom ñoo ko ku ñu woo ñoom ñoo woo kon xale yi ñu ngi di gërëm ci taxawaay boobu ñu ngi leen di gërëm ci xalaat yu mag yooyu ñu leen di ñaan yàlla tamit alquran yal na ca xam-xam tegu yal na ca njub tegu yal na ca baax tegu yal na ca war tegu yaatu nga xam ne lépp lu ngeen bëgg liggéeyal diine ji ndax bokk na ci seen bëgg-bëgg liggéeyal daara ji ba xam ne lépp lu ñuy soxla ñoom ñoo koy def te du ma ko sax ñu ngi leen ñaanal yàlla yàlla may leen wërsëg woowu ñu ngi leen di gërëm ñu leen sant ñu leen ñaanal yàlla ñu ngi dellu di gërëm kilifa yu mag yi toog fii ci place bi borom xam yi dégg ngeen li ñu fi wax li ñu xam-xam yi ndax ñoom wax nañ seen bopp li fi wax tegtale na ñoom ñooy ñan kon ñu leen sant ñu leen di gërëm ñu leen ñaan tamit. Euh, suñu doom bi nga xam ne mu ñëw ñu wax ñaata kaamil lañ fi jàng ah ah ah ñaata juróomi kaamil ak ñaata yaasin ngeen ba baabal Cheikh Mamadou maa ñëwal ci sa tur la mu maa ngi ah. 236. 236 moom la ma ci ci si waaw te loolu lépp ñaanal dëkk bi la ñaanal mi ñaanal nawet bi ñaanal dëkk bi la ñaanal mi. ñëw si tur la ñaanal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 ورضي الله عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي ربيع بن الجراح وحمزة والعباس وجعفر المعقي والحسن والحسين وفاطمة وخديجة وعائشة وسائر أمهات المؤمنين رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم نبل به قلوبنا وقبورنا واشرح به صدورنا ويسر به أمورنا ووفقنا لما فيه رضاك عنا اللهم اجعل القرآن العظيم أمامنا وقائدنا إلى ولا تجعل خلفنا سائخنا إلى النار اللهم اجعل القرآن العظيم شافعا شفعا فينا ولا تجعله مائلا مصدقا فينا اللهم اجعله لنا ولا تجعله علينا اللهم ذكرنا تلاوته على النحو الذي يبديك عنا ولا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا عدوا إلا كفيته ولا قائما إلا رددته ولا عاصيا إلا عصمته ولا فاسدا إلا أصلحته ولا ميتا إلا رحمته ولا عيبا إلا سترته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ما فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها في سلمك وعافية إنك على كل شيء قدير بالإجابة جدير يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وانفعنا بما فيه من آيات وذكر الحكيم اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته وحلاوته آناء الليل وأطراف النهار ابتغاء مرضاته اللهم ما قضيت به علينا من قضاء لا عاقبة رشدا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 جعلنا في جوارك الذي لا يغفرون بعض اللهم ندعوك بك في نور الأعداء ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم إنك أعلم بأعدائنا وكفى بك ولي وكفى بك نصيرا اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا وحاضرنا وغائبنا وابننا وعبدنا طائنا وعسنا اللهم اغفر لنا أجمعين وتوفنا مسلمين وأصلنا في زمر النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وفينا ما آمنا وما علمنا من أمور الدنيا والدين وكف عنا علم الدين ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين جعلنا من عبادك المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun salaamun alal mursaliin walhamdu lillaahi rabbil aalamiin